ma ok man maa ngi man sénégalais mais instant maa ngi Gambia donc euh, man lu ma xaar si discours euh, son excellence président Macky Sall dëkk boo gis mu doxee sécurité bi mooy mooy premier mais si temps yi passé dañoo gis dañoo gis Sénégal ma vraiment sécurité bi moom dafa xaw doy waar tuuti. waaw parfois da toog si te nga déglu gars di ku nekk di di di di indi ay waaso. e ñi ay Polle ñi ay nangam nangam mbaa Fuuta mbaa Fuuta Dakar Fuuta Touba loolu yëpp amul benn njëriñ ñu ñëpp benn lañ surtout aussi eh, la eh, viol pour faire aux femmes quoi loolu tamit mu mu mu kiis bu baax moppali ko ku ku dóor ku jigéen mbaa mu violé ko ñu ñu tëj ko ñu tëj ko ñu daan daal daan ñu diis aussi tamit ku rey nit ñu rey ko man boobu loi dama bëgg président Macky Sall appli